Rasulun karimun sejak wujadu Wahum yaslamu ke asjar kullah Salamu alaika Rasulullah Kama yaslamu ke kullah Rasulun karimun sejak wujadu وهم يسلموك أشجار كلها سلام عليك رسول الهدى كما يسلموك أشجار كلها بالله والله تعالى في كمال محمد خير عباد كلها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 ngeen ànd si ak seen xarit Ahmed Massar te ñu fas yéene àndaat ak yéen si émission Séral sa xol si nabi fas yéene leen bégal comme nañ ko yàgg defee ci ay clip yu neex di leen waxtaanal si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñu ngi nuyu sallallahu alayhi wa ki nga xamante ni si mooy sang waa aljana boo gisee loolu nag yonent moom ñëpp ko war a nuyu ndax boo ko nuyoo day jóg ba fu mu nekk moom fay la di lay firndeel loolu mooy Mouhamadou Bachir ba mu demee ci xabrum sallallahu alayhi dafa wax moom foofu yonente tontu ko mu ngi ko naan fa mabluhul ilmi fiihi annahu bashirun fa mabluhul ilmi fiihi annahu bashirun fa mabluhul ilmi fiihi annahu bashirun yonent bi fu mu la ko tontu ne ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim moo tax nuyu yonent bi war na bépp jàmm moo gisee émission bi ni muy commencé loolu Alaaji Modou Ngom moo ko woy ne ko salaamualeykum rasulul huda kama yaslamu ka asjaarakullah yaa Mamadou Seydil Jinaan jazakallahu xayra jaza nee na ko maa ngi lay nuyu yow mi nga xamante ni si yaa yonent bu jub bi lu tollook ni garab yi toll maa ngi lay nuyoo nuyu boobu mu ne ko yaa Mamadou yaa Seydil Jinaan mu ne ko yow Mamadou yow yuñ gërëm yaay sang waa aljana jazakallahu yàlla dina la fay gën gi fay lu tax nag yàlla di ko fay mu ne ko wa allama la naa kayfa nu salli yow yaa ñu jàngal ni ñuy jullee yàlla dina la fay gën gi fay moo nu suum wa allama lanaa kayfa nu zakka wa allama lanaa kayfa nu hajj yaa ngi jàngal nu ñuy woore yaa ngi jàngal nu ñuy demee màkk yaa ngi jàngal nu ñuy génne asaka moo tax yàlla dina la fay gën gi fay loolu nag ku la ko defal amal nga xob cant moo tax mu ne ko naskur Moustapha Mucaba Nooro Muhammadu xayral wara taala mu ne ko naskur Moustapha maa ngi lay sant yow mi nga xamante ne si yàlla la tànn ba dara amulee Mucaba mu tànnaat la ci biir li ñu tànn Nooro yaa di leer. Muhammadu Seydina Muhammad yow mu ñu gërëm xayral waraa nag yàlla rek moo si bokkul mu ne ko xayral waraa yaa gën lépp képp ku dul yàlla rek yàlla gën taalaa yàlla buur bu màgg bi kon tey loolu la leen indi loon pour nuyoo leen ko léegi ñu dugal leen benn clip ñu nuyoo leen ko di si waalo suñu xarit yi nga xamante ni si ñoo di Ndeye Cissé Mbodj ak Waly Sène Khadija Dieng Ahmed jaxaw yaa ngi si biir ak Pape Cokom Ulay Yaay Rasoul tamit yaa ngi si biir ñu seetaan ko te ñëwaat Masyaallah, masyaallah de ngeen ñooñu di way yonent bi dañ ko doon nuyu di ka ñaanal de ngeen sañu ne anta nurullahi ngeen xamni koku sori na nit anta nurullahi boko ko déggee moo yonent bi modi leeru yalla yalla lu neex rek mu def ko leeram ñoo yërëm defal ñu xewal mo tax mu wacce ko def ko doom adam wacce ko si ñun pour ñu jëriñu si wax nañ ko tamit ya imamal anbiyaa yi boo ya yaa imaamal anbiyaa yi moo di cent yi nga xamanteni si yàlla la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy seen imam yàlla la neex mu tànn ko ne ko Habibillahi yaay sama soppe indi ko fii ci duniyaa nag pour mu doon yërmande mindee fii moo tax góor gu baax yi da ko doon wax ni xadd arsaloo allahu rahman muhammado nuurul huda bi rahmatan alamina samsu samoo si waahidun alaaji moo du ngom nee na ko xadd arsaloo yónni na moom yàlla allahu rahman moo di yërmande muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nuurul huda yaa di leeru njub bi rahmatan na nga nekk yërmande nag ci lépp lu yàlla bind samtu sa moo si moo di jantu jandi waahidun kenn la kon ngeen xamante ni si yonent bi amul morom nañ ko fonk nañ ko respecté di julli ci moom bëgg ko nag mu jaral ñu lépp moom nee na sallallahu alayhi wa sallam man tànk gënaluma la sa ndey gënaluma la sa baay gënaluma la say doom gënaluma la say jabar kon sa mbëggeel ci man des na kon yonent bi na nekk suñu lépp nañ ko jiital mu nekk suñu lépp bu ko defee yërmande gi yàlla ne yërmande laa def si yéen dinañu jëriñ su neex yàlla incha allah kon léegi dañ leen di beneen clip rek Moustapha Rassoul ngeen safoo ko bii nag dañ ciy may suñu xarit yi nga xamante ne si ñoo ngi Bambay taax ak waa Bambay séeréer ñoom moor jaañ ak mère Soxna jaañ Diagne na bu ngoom yaa ngi si biir ak waa sunu xarit bi nga xamante ne si mooy mère Ndeye Seck macha allah kontaan nañ bu baax. ak maam Fama Seck ak sama chéri nag sama maam maam maam ma Fall noonu la kay mooy bu baax te ñu dem seetaan ko te ñëwaat. way leen Seydina Muhammad ya Rasulallah bàkk leen Seydina Muhammad ya Habiballah way leen way leen Seydina Muhammad ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam xayrul anbiya سيدنا محمد يا رسول الله فكلي سيدنا محمد يا حبيب الله ويلين ويلين سيدنا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الانبياء وين كن نبي مصطفى وين كن نورا مصطفى وين كن تاها وينكو يا مصطفى محمد شافيونا مصطفى موي انت النور مصطفى كيف نور مصطفى انت ولا يا محمد مصطفى فونداسيوك الرسول مصطفى نيوي صبا yonne ba xëy مصطفى Moustapha ku مصطفى Moustapha na nga gis Moustapha ni Mustafa yal na nga gisik Mustafa Mustafa bayu Fatima baayu Mustafa baayu Mustafa loxo yi ci Mustafa magal Mustafa cey Moustapha jaraway jarakañ jarataan te liggéey sallallahu alayhi wa sallam الأنبياء ويليت سيدنا محمد يا رسول الله باكلين سيدنا محمد يا حبيب الله لقد ساد من ياتي كما ساد من مدى آه، Lord. سيدنا محمد لقد ساد من ياتي كما ساد محمد الحاج مدننا سيدنا محمد رسول الله لك سناو بنورك خد زينة سماو الحاج مدول مدولنا كرجي كسرنا باي محمد عبد الله جام جامنا سيدنا محمد وأنزل فيك القرآن الكريم كتاب للأنام في نجاو سنين بوب سيدنا محمد كل جاي تار نسب خلدم مصطفى gitaaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin ku lay jaay taar na sam xel dem ci nuura siraaju lampam gaas bili yaasin ku lay jaay taar na sam xel dem ci haadi ki gindi samaam yi réeroon walla yaasin yeneen di doom nga màgg na Mustafa layla layla layla ليلى ماغال juddub Seydina Muhammad bur ليلى ليلى ليلى ليلى صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء سيدنا محمد حبك لين سيدنا محمد يا رقيب الله ويلن ويلن سيدنا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الانبياء ما شاء الله ما شاء الله مصطفى رسول بن طرب no yonent bi ji nga bëgg araab yi xaw ma indo yi doon way sànq dafa neexoon suñu sénégalais yi nga xamante ne si ñoo ciy góorgóorlu ñoom it buñ ko wooyee day neex trop macha allah yonent bi lañ war a roy moom lañu war a topp ndax yàlla nee na si alxuraan indil naa leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk seen royuwaay bu mucc ayib kon Moustapha daal lañu war a roy moom lañ war a topp yàlla mu ne bu ngeen jullee ci moom benn ma julli ci yéen fukk te bu ngeen jullee ci moom fukk ma julli ci yéen téeméer bu ngeen jullee ci moom téeméer ma julli ci yéen junni te ku julli si Seydina Muhammad junni yàlla nee na araamal na sa yaram safara kon duñ leen wax loolu ngeen bëgg ko ngeen japp ko lool rek mo fi ne nak bëgg nabi dal mom la Serigne Bamba wax mom la ma Maalaaji Malick wax mom la kep ki nga xamanteni ci sii day bëgg yëneenti bi rek sallallahu alayhi wasallam lool la wax nak Serigne Bamba mo ngi naan fi kep ki nga xamanteni ci yalla daf la darajal xam nañ ci limitu may fu mu toll waye ki ngay ki naan ahmadu dal li nga mëna wax moy yalla daf ka tan daf ka tànt mom lay mom lay wax al at ci mom lay wax ci xasida nan li kulli min jumlatin axyaari martabatan laakin namal ahmadu muxtaaru muxtaar nee na képp ku yàlla may xam nañ sa limitu may nu mu toll waaye ki naan Mouhamed daal li nga mën a wax mooy dañ kaa tànn dañ kaa tànn te dëgg neexu it dañ kaa tànn mooy muxtaar muxtaar moom la Alaaji moo Ngom naan ko muxtaaru muxtaar nabi xayra naa wa xayra kulli man arsalallahu fii naa mu ne ko muxtaar dañ laa tànn muxtaar yow dañ laa tànn nabi xayra naa yaay yonent bi nga xamante ne si yaa gën wa xayra kullu man arsalallahu fi naa yaay yaa gën képp ku yàlla mos yoon yónni kon dañuy def lu dul may leen Cheikh bu Diop waaw comme que yéen moom yéenay seetaan seral sa xool ci nabi kon seen xol war naa sedd trop sax yéen la ñuy xool seen i mbégte bii moom dañ kaa ñaanoon ku si mel ni Ahmed fay moom ñaanoon na ko di waxaale joyeux anniversaire sama si sa bu baax boobu di Aïcha Taha comme que da ngay anniversaire ñu la ñaanal yàlla defal la gudd fan ak wér gi yaram ku bëgg yonent bi la Aïcha Taha moom yàlla yàlla dolli sa mbëggeel si Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam li ko may tamit suñu yaay Zeyna Fall ak mm, ñu dem ba Fatick tamit fekk fa sunu mag sunu tànda ju baax nekk Siga juuf ak mère mari jeng tànda Daado léegi ñu dem seetaan clip bi te ñëwaat. masula woote élection kenn masu koo coup d'état koy aar mbaa koy yiir mbaa lu koy xettali ci lu mu mën a doon laa ilaaha illallaah يتيم يا رسول انا بك رسول الله السلام عليكم waa Sénégal ak waa diaspora bi ku sopp festival salam ku fi yónneen andi fi tasul maa nga sar xolle manu màggal rasulullah رسول الله انا صبي رسول الله yaa gënal sama baay yónneen yónneen ana soppe yónnent bi yaa ma gënal soxna ak i doom yónneen yónneen ana soppe rasulullaay yaa ma gënal bépp bànneex ci àddina ana soppe Seyduna Muhammad yaa ma gënal sama bët sëriñ jaral defal nii mbooloo mi déglu leen déglu leen bu baax a baax sama baay ya daan waye nii su ngeen bëggee ma toppandoo ko def leen nii mu daan wax mbooloo mi déglu leen déglu leen bu baax a baax ba nu bégaat ba xol yi féex ngeen xam ni noo seddoo ku baax xanaa dégloo wul du buuna maam doon nay Cheikh Al Khalifa ne المما تكون كنت نيرا بسم الله خالقنا من يقول كن ويكون ليلا غمك يوتخم توكو سلت ديك لجمان ان شاء الجليل ربنا تيما وي رسول مجل احمد الامين من جي دوم عبد الله مواد او نيرم ابو البسوتي مستحم تي بي سي في وون Moustapha ne leen champion yàlla moo ko tànn mu gën kullu mursalin fit rasul gëm rasul mu ràmmu moo di muntaka taqiyun senn mastalal ci lu bon daa rafet te tey bari jom rasulu laay ma rasulu moo reyu feet dandi geer ko luy wutama macha allah macha allah Cheikh bu Diop bi na na trop moom moom taalibe shérif yi la boo gisee shérif yi moom seen sëriñ ki nga xamante ni si moom moo di Cheikh na Cheikh Sadi bi moom sët la ci yonent bi waaye nee na moom sët kontewul man yonent bi dafa kaa bëgg sët kontewul ci moom yàlla moo na yonent bi du bàyyi kenn ci yéen li konte daal mooy rasulillahi la sama ndaw la te nee it moo tëj yonent yi kon moo tax Cheikh na Cheikh Sadi bu ne man bu ma soyoon di ñaan yàlla kon yaa laytu kon ma nekk suuf si suufu dàllu yonente bi bu ko defee Seydina am di dox si kawam kon li lay wan ni sët ak jarbaat ak yëpp kontewul ci yonente bi yàlla moo ko njëkk wax ci alxuraan kon duñ def rek durul di leen bégal rek comme que yéen moom lii ngeen bëgg seetaan émission Séral Sow Xol si Nabi moo jar jënd sa connexion toog di seetaan yonente daal loolu neex na kon léegi dañ leen may benn xaban ñaa bi nga xamante ni si Alaaji Modou Ngom ci Abu Lahab ñu dem seetaan xabaan bi te ñëwaat bii nag ñoo ngi ciy may waa groupul xaadimul xadim ñu leen koy mayaat rek ñoom moom macha allah ay xale yu baax lañ yàlla leen yàlla jàppale bu baax. ci may sunu xamante ne si ku si mel ni Matar ngoom ak madame Ngom Aminata Diaw fàttewuñu ko ñu dem seetaan ko te ñëwaat. macha allah macha allah clip boobu moom day daw sama yaram ndax dañ ciy gis sunu xarit yi nga xamante ne si ñoo fi nekkoon a ñun di liggéeyal yonent bi ñu jiitu ku si mel ni Ndoof ak vie Ba ak Pape Gueye ñoo ngi foofu ci kilib bi al na yàlla yërëm te dolli leen leer fi ñu ne ci daraja yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent moom nekkal ko ba dee moom ndam rek nga siy gis macha allah moom moom lépp yàlla la ku ko sopp yàlla daf lay sopp da lay yëg ku ko màggal yàlla da màggal même boo dee kon boo ko màggalee yàlla da lay yëg kon nañ jàpp doomi ji moo jar a jàpp nañ ko jox suñu lépp suñu alal suñuy doom suñuy soxna lépp nañ ko ko jox te moom mu nekk suñuy milliards nag yàlla nañu yàlla dimbali ñu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ko liggéeyal ba dee bu ñu dee yàlla dekkile ñëw ak moom si daraja yonent sallallahu alayhi wasallam léegi dañ leen di may Pape Malick Pape Malick mbay moom taalibi Alaaji Malick la mu barkeelu moom bi mom dañ ci may suñu mag yi nga xamanteni ci modi aissatu ak ndess yow mi dekk buun ma ngi la kay may ak omar seen ak wali seen aussi ñu la kay mayal rek yow mom da ci jabb bu baax macha allah waa casamance aussi faté wu ñu len diko mayat aïcha taha comme ko yaay anniversaire te dañ la kay mayal rek faté wu ñu kenn ñu dem sétane pa malik bi te ñëwaat lillahi يوم nuzulihi متقلدا بالحق والبرهان هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بسف ملائكه بسطت إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك العظمى التي ما بعد الجنس من قربان والحور من بين النوائد في الحمام متفرجات فيك كالولدان وعليك برد حتى ساك محمد في الموقفين به وفي الإعلان وبوجهك الصافي بوصف باير قال وقم الكتاب بقته النوراني يا سيدي يا سيدي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 من ربي في ربي الحنان ما حال أحمد التجاني منشدا فإليك يا ابن محمد ناداني ما حال أحمد التجاني منشدا فإليك يا na Muhammadin nadaani macha allah macha allah Pape Malick bi nañ trop moom moom taalibi alhaaji Malick la borom wa innahu is aradallahu nasatana abbaana min nuurihi nuuri nabil alami nee na yàlla bam amal jàmm man maa laaji Malick ak keneen ak keneen yàlla dafa jël ci leeru boppam moom bind ci leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci leer googu nag la yàlla amalee lépp lépp moom la yàlla amalee ci leeru yonent bi kon tey li leen leen indiloon seen émission seral sa xol ci nabi di leen jox dig daje incha allah ba àjjuma prochain te di leen wax ni bu leen fàtte di abonné wu chaîne bi chaîne chaîne la ku bëgg it clip buñ la may mën ngaa commentaire si suuf si suuf incha allah dinañ la bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatullah allahuma salli ala sayyidina muhammad xayral wara rasul wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman